fexe ba libéraux yi des ci nguur gi gannaaw 2024 loolu mooy mébétu ndaje Renew 2023 bii. waaw xam nga ndaje la yu nga xam ne ndaje yu am solo la parce que bu ngeen dégloo euh, monsieur le ministre Gilbert Ouedraogo nekk président wu RLA ngeen déglu lu tamit monsieur le président Macky Sall nekk nekk président euh, APR mais aussi euh, nekk président de la République. da ngay gis ne ñaari wax yi dafa am fu ñu jëm fu ñu jëm mooy euh, ñu fexe d'abord ba libéraux yi au Sénégal teewaat nguur gi teewaat nguur gi ci wate yi ñu jëm. waaye nag xalaat boobu du lu bees ndax Abdoulaye Wade yàgg na ko wax. loolu kay xam ngeen ni président Abdoulaye Wade wax na bu yàgg ni nañu ñëwaat famille bi reconstruire famille libérale waxoon na itam ni bëgg naa libéraux yi téye nguur gi euh, juróom fukki at. loolu defe naa ni lu kenn ku dëkk Sénégal ku koy nattable loolu nag kon yoon gis ngeen ni parti démocratique sénégalais taxaw na fii ñu toll nii pour loolu nga xam si président mi ngi ko doon mébat mu ñëwaat. libéraux yi dañu waxtaan ci lu bari waaye jàmm ci Sénégal ak li ko wër moo njëkk. libéraux yi daje nañu tey pour waxtaanee fan la àddina bi jëm ak nan lañuy def pour mën a développer wu ci mbiru commerce mbiru environnement mbiru infrastructure ak mbiru énergie ak mbiru ressource yooyu yëpp kon nekk yoo xam ne si mooy pensée libérale bi nga xam ne si bu ngeen ma dee déglul sax ren ji ci euh, budget bi assemblée. te ñu gis ne jàmm ji sooxe na ci réew yi ñu wër ndax fu nga xam ne jihadisme mu nga fa. ñun Sénégal ñu nekk réew mu nga xam ne euh, mucc mucc gëm nañ ci loolu dañoo war a def lépp. pour que loolu du fi egsi ndaje Renew PAC 2023 mi ngi am ci ndakaaru ci jamono ji ñetti fan ci weer wi jàpp juróomi fan ci weeru décembre bi muy ndaje libéro Afrique Europe ak Caraïbes